de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. On se retrouve euh, en direct pour vous accompagner tout au long de cette soirée euh, sur euh, TFM mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbaa jàmm ngeen yendoo dellusiwaat nañu comme ni ñu koy defee chaque samedi soir ak invité d'honneur suñu ay invité d'honneur nag xam ngeen ni depuis un moment ñun ñoo leen di fekk ci seeni biir kër situation bee ko obligé situation bee ko waral situation bi ñu nekk nag situation wu jàppale sa bopp la ba bopp doo njaboot alors askan wi euh, xam ngeen ni euh, crise bi euh, daanaka luñ ci wax rek répétition lay doon parce que def na daanaka weer bërki démb weer ak lu teg boobu nag ba tey ñu koy dund fii ci Sénégal waaye ñun ci télévision Futur Média ma fàttaliwaat leen engagement bi nga xam ni jël nañu ko ak téléspectateurs yi depuis que li nga xamante ni moo di crise du coronavirus bi tàmbali na mooy jéem koo daan ni ñu koy daane mooy yéen ñëpp ngeen toog seen ay kër ñun ñi nga xam ni ñoo ne ci télé bi jéem di gérer lépp sensibilisation information décrypter mais en même temps vous divertir à propos de euh, divertir divertissement yi samedi euh, dañu koy euh, defee nii comme ça ñu wétali leen et à tout moment dinañu dem fekki ay personnalité euh, seen ay biir kër dem ak ñoom ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee depuis un moment te ñun ñu ciy dox télétravail wala visio on retrouvera ay kilifa yu mag bu ko defee kenn ku ne bu ñu la fekkee sa kër daañ jéem waxtaan ba noppi itam bégal leen a àndandoo ak ñun euh, ci euh, télévision euh, future Média ñu leen di gërëm encore parce que bëri ngeen ci lu wéetaay am ngeen àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média à travers suñu ay programme loolee itam ñun ñu ngi koy rafetlu waaye fi mu tollu tembe ñu fàttali waat leen ni respecter consignes yi nga xamante ni borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni ñooy liggéey kër docteur joxe nañu ko mooy ñëpp respecté ko muy cet ak gàtt tànk ci te gàtt tànk nag euh, di ñaari baat yoo xamante ni ma fàttaliwaat leen ko mooy consignes yi ëpp solo yoo xamante ni bu ñu ko respecté euh, daañu euh, moytu coronavirus bi law tey nag tombé ak 4 avril 2020 60e anniversaire feetu indépendance bu Sénégal malheureusement guléet ñu am fête bu mel nii nga xam ne bu njëkkaan heure bi dëkk bi daan na yëngu daan na nu feetu invité ay woykat invité ay artistes invité ay historiens ñu xawaare waxtaane Sénégal démb méngale ko ak tey waaye nag malheureusement euh, daje bi dañu koo tere toog seen kër lañu wax la preuve tey ci suba euh, ba euh, chef d'État gis ngeen ni mu célébrer fêtu indépendance bu Sénégal ci ni mu gënee sobre loolee mooy firnde encore ni virus baa ngi fii et que ku yebu rek moytu ko ñoom ñu ngi koy moytu donc ñun itam moytu ko mooy li ñu war et on espère que yéen a seen ay biir kër bon vous êtes obligés puisque couvre-feu ci la nekk depuis vingt heures génnul ñu ngi jëm 6 heures du matin fàttaliwaat leen ni euh, couvre-feu bi yokkaat nañu ko fii ba weer euh, dañuy couvre-feu tous les soirs bu 20 heures jotee euh, jàpp 6 heures du matin mais nu on est là bu ko defee ñu mën leen a gunge ba ngeen mën a kontaan bu ca kanamee daañu fekki ay personnalité seen ay biir kër ay nit yoo xamante ni ay témoins laa leen tuddee ay gardiens du temple daañu fekki ay communicateurs traditionnels fekki ay nit yoo xamante ni mënees nañoo waxtaan xamante ni mooy feetu indépendance bu Sénégal euh, bokk na ci euh, Pa Mansour mbay bu ngeen fàttalikoo euh, samedi bële ca ginnaaw jotoon nañu ko fekki këram Alaaji Bekaay mbay moo demoon ñu def duplex ak moom mooy bis bi nga xamante ni invité naa fi patronat bi doon def collecte de fonds dajale xaalis bu bëri boo xamante ni am na parti boo xamante ni yóbbu nañu ko ministère de finances donc bu ca kanamee daañu fekki Alaaji Mansour mbay këram fekk itam yeneen i kilifa yoo xamante ni euh, armé nañu euh, seen ay euh, accessoires yi ñuy jokkook ak ñun puisque dañuy jokkoo ak ñoom en visio à propos de patronat bi ma tudd léegi nii xam nga keroog bi ñuy def duplex ak Pa Mansour Mbaye ci la ñu invité ay kàngam yoo xamante ni ràññee nañu leen ci wàllu secteur privé bi keroog ñu def soirée boo xamante ni soirée collecte de fonds la woon du sax ni téléthon parce que xam naa ni su ma nekkoon téléthon sax keroog xaalis bi dina ëpp li ñu am am waaye defuñu woon téléthon euh, dañ doon def euh, dajale rek euh, ngir jéem a jàppale gouvernement ci daan coronavirus bi ndax gouvernement soxla na ko gis ngeen ni fan yii yëpp daanaka président ba démb mu ngi expliquer naka la ñuy pàccee secteur bu ne ci ndimbal ci jàppandal loole dafa am solo waaye gis nañu itam ni jot na am tuuti polémique du ma ci ñëw waaye li may préciser rek ni am na ci ñoo xamante ni defoon nañu promesse de don ba léegi patronat baa ngi leen di xaar

am ci ñoo xamante ni euh, promesse de don yi ñu defoon respecté nañu ko ba am na parti boo xamante ni euh, ku mel ni président Serigne Mboup ànd na ak ñoom ñi ko organisé woon yóbbu ko fi nga xamante ni mooy ministère des finances am na ci ñoo xamante ni defoon nañ ci ñun promesse de don waaye bi euh, samedi boobu le passé dañoo demal bopp yóbbu seen ay cinquante millions yóbbu seen ay milliards fi nga xamante ni mooy ministère des finances parce que bi ñu defee collecte de fonds boobu ci guddi googu quelques jours lañ ci teg rek ministère de la santé ministre bi ci boppam Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy gërëm biik rek euh, mu ngi woon fii ci euh, télé bi euh, ci la ni ñoom jël nañu dogal ni ku ci amati ndimbal looy joxe na nga ko yóbbu ministère des finances donc bu ca ci biir émission bi dinaa ñëw ci ñi nga xamante ni dem nañu jox patronat bi patronat bi dem jébbal ko ministère des finances wax itam ñi nga xamante ni defoon nañu promesse de don et que ba tey ñu ngi leen di xaar ndaxte seen i loxo dina amal njëriñ Sénégal ndax fi mu tollu tembe Sénégal moo leen soxla encore que Euh, guddi googu euh, patronat euh, moo ko organisé woon am confiance ci télévision Futur Média am confiance ci ñun ñu nit ñu ànd ak ñoom ubbil leen sunu antenne jox leen sunu programme boole leen ak animateur bu mel ni man ñu defandoo ak ñoom soirée boobule waaye lépp loo xamante ni jot nañu ko ñoom ñi ko organisé woon di patronat bi ci xaalis ñoo demal seen bopp déposé ko fi nga xamante ni mooy ministère des finances et puis voilà ñeneen ñi nga xamante émission te joxe guñu ba tey maa ngi leen di xaar am na ci ñeneen ñoo xamee ni ma répété waat ko euh, defoon nañu promesse de don ci patronat bi ak soirée boobu ñu organisé woon ci télévision Futur Média mais ñoom ñoo ko dem yóbbul seen bopp fa nga xamee ni euh, moo di ministère des euh, finance donc loolu jar na préciser et j'y reviendrai puisqu'à tout moment mën na am ñi defoon promesse de don woote pour joxe xaalis bi nga xamante ni diggoon nañ ñu ko ci guddi googule 23h10 euh, mooy euh, euh, doog a jot te tàmbalee guñu li ñuy def rek mooy njëkkee ak ñi nga xamante ni bëgg na maa ko ak ñoom pour ñu waxtaanee indépendance bu Sénégal indépendance na kenn du ko wax te doo ci boole Pa Mansour mbay ma bëggoon rek ñu fekki ko këram en visio télétravail bi nga xamee ni ñoo ngi koy def boobu ba tey ci télévision Futur Média bu doon suñu sago invité donneur bi di programme divertissement bu nu ko dee def. gan yi bu ñu leen invité euh, ñu doon ay invité d'honneur yu télévision Futur Média dañ ciy boole public mu am musique am ambiance am tàccu am kaf am ree mais malheureusement euh, coronavirus rek mën lii Covid 19 bi toj na toj na àddina euh, lépp loo xamante ni manifestation la woon dakkal nañu ko boobu ba tey donc rassemblement yi mënatul ne moo tax bu ngeen seetloo ma fàttaliwaat leen ko ci engagement bi télévision Futur Média jël ak yéen bokk na ci wàññi effectif bi nga xamante ni mooy liggéey par exemple toog je suis qu'avec un seul caméraman et ci ginnaaw itam euh, jël nañu dispositif yi ci war euh, pour jéem di leen euh, gunge en toute sécurité pour ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéey mais yéen itam ñu wan leen ni kuy digle càngaay da ngaa war a nangoo sangu li ñuy def nag mooy dem. Euh, kër Pa mbay Mbaye euh, fekk fa suñu papa euh, moom itam c'est le gardien du temple papa ñu ngi lay nuyu di la ziar kontaan lool ci nii nga ñu nangulee tey itam ñu fekkaat la sa kër ci guddi feetu indépendance guléet nag lii am boobu ba tey yaa ngi fekkee ay feetu indépendance mais pour la première fois Sénégal célébrer indépendance papa ci anam wi waaw papa. waaw. ñu ngi lay nuyu di la ziar mbay. waaw. dégg naa lii. maa ngi lay ñaan yàlla may na lu gudd fan yàlla may na lu wér. amiin mbay amiin mbay. di ko ñaanal sama jarbaat sama xarit sama soppe di sama wóllëre wu xam ni booba gareegul sax àddina ca maama Mari Sène mm-hmm. mi jur yaayam mm-hmm. kenn ci man di ko xam ne waxuma Sénégal waaye Afrique waaye le monde entier. Mhm. xam nañu ko Youssou Ndour. Mhm. bëgg ma lool fonk ma lool. Mhm. xam li xewoon démb ak bërki démb. waaye Baye Cheikh. ñoo nu am ko. Baye Cheikh xam nga lu ko waral. lu ko waral papa. mooy général de Gaulle dafa ñëw di visiter li ñuy wax Afrique occidentale française ñëw mm-hmm. ba dëkk bu ñuy wax Guinée. Mm-hmm. ñu ku wote non tu pars à l'indépendance immédiate. Mm-hmm. ku wote Ndakaaru. Ahmed Sékou Touré ni ko man je vote non je pars à l'indépendance immédiate. ñëw Ndakaaru. Abdoulaye Ly docteur Eslet. Assane Seck agrégé en Amadou Bakhtar moom ancien directeur de l'UNESCO. Mhm. et tant d'autres Diouf Jaraaf ingénieur ancien ministre ak mhm. des cadres du Sénégal. waaye Cheikh ñu dem tëggee ci. ba ko teeroo ñoom ak seen pancarte yëpp ni ni ñoom il vote non. Mhm. Senghor newu fi député à l'Assemblée nationale. Mamadou Dia nekk fi. député à l'Assemblée nationale. Mamadou Dia président Dia Lamine Gueye ngi fi waaye dafa toog këram. président de l'Assemblée nationale maire de Dakar. te warwaat ñu teeru ko fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu ànd ak le président Dia woote ñu lu xew ñu ne ko bi dëggoon ñëwee ca wàll jooju def discours am bu mag ba. am na des jeunes intellectuels ne ñoom ils votent non pour partir à l'indépendance immédiate. Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ma mhm. nga kees nee na moom day ca conférence ba ne il would wéy Ibrahima Seydou Daw ancien président de l' territoriale feelu ko ca Kaolack mhm. ni il would wéy Ibou Diallo ancien sénateur feelu ko ca Casamance ni il would wéy mm. président Senghor ne coow li bari na dem tëggee fa du daan dem mhm. primu du di parti ñu dem ñoom ñëpp tëggeej jayee le président Dia yaa na yàlla yokk leeram amin amin amin Maodo président Senghor président Lamine Guèye mhm. ñoom ñëpp yéeg ca kaw ni ñoom day il would wait pour rester dans la communauté française wallaay wallaay Diouf Jaraaf Diouf Jaraaf mhm. Bathierno bu ak ña nga xamoon Ablaye Ly Ablaye Guèye Kabri ñoom ñëpp jël parole li il vote non ba coow la baree nag waaye Cheikh président Senghor ni waaw xam nu kañ lañu fiy jóge ak discussion nun fab kenn mu défendre la non nu fab kenn mu défendre la wéy ñu ne la wéy ñu ne du caam du caam Baye Cheikh mooy mhm. nijaayu pour Abdoulaye Dione ah ñu désigné ko kon yàgg na ak galon Baye Cheikh <laughs> désigné pour le nom Doudou Thiangoye yéeg à la tribune devant le président Lamine Gueye mhm. devant le président Senghor devant le président Mamadou Dia ku ñu wax Amadou Babacar Sarr Chopard moom Ibrahima Sarr ba nga déggoon ci coup d'état ba ñoo mhm. bokk day bàyyi kuréel moo présidé mhm. ndax kooku moo doon secrétaire fédéral du parti socialiste du Sénégal et de la Mauritanie Ibrahima Sarr Chopard waaw ñoom ñaar ñoo ah. bokk day bàyyi c'était pour la première fois uh-huh. ñaar ñi seetlu au gouvernement du président Mamadou Dia. waaw ah, waaw papa yaay historien. ba Cheikh. waaw. ba coow lu bare na. Hmm. c'est que du on vote. nu voté le oui a triomphé. Hmm. xale yi nag ni bàyyi nañu parti bi nu bokkoon UPS ñoom il forme le parti le PRA Sénégal ak ñoom Assane Seck ñoom Amadou Mokhtar Mbow. Hmm. ñoom Abdoulaye Guèye Kébri ñoom Abdoulaye Ly quitté le parti ñun ñu des dans le parti. jamonoy dox di dox ba Cheikh mhm. ba ñu former la fédération du Mali avec le avec français ba nga daan dégg mhm. mu àndandoo ak ñoom ak président Modibo Keïta président Senghor Dia ñoom ñëpp ñu àndandoo ñu pour rester dans la communauté française et le oui a triomphé parce que boobu fekk na président Mamadou Dia daa bëri woon pouvoir. Mhm. yaa ngi dégg Baye Cheikh. maa ngi dégg bu baax mbay maa ngi dégg bu baax Papa. ñu def la formé dem nag ba am jàppale ju xam ni Malien ya ak président Modibo ñun ñoom dina wooteel mu Senghor comme président Mamadou Dia ni koo teelul Senghor. kon Mali dana éclaté Tidiane Traoré mi xam ne moo doon ministre. ñu Boubacar Guèye ancien ministre Abdoulaye Fofana. ministre de la santé et l' du Mali ñëpp àndandoo ñu bu dul Mali dara tas ko day dara tas. waaw ah, fédération du Mali. waaw ma dans la nuit du 19 août au 20 août. Mhm. fédération du Mali éclatée. l'Assemblée du Sénégal. Mhm. ñoom itam daal di réunir à deux heures du matin sous la présidence du président André Guillabert boobu Lamine Gueye nekku fi. Mhm. ñu ne nag na maa tas ci la maa di tase rek. Mhm. ñu ne waaye doyul nag. lépp l'indépendance du Sénégal nag nu wote benn loi def couvre-feu comme ni nga ko nekkee tey. le vingt et un août ca dëgg-dëgg Modibo ak ay àndandoom ñoom ñëpp. ñu yóbbu leen ci express ñu dem. le 26 août 1960. l' assemblée nationale vote beneen beneen constitution. Baye Cheikh xam nga lu waraloon constitution boobu. lu ko waraloon papa. moom laa lay wax. ñu déterminé nag woote nag l'élection ñu ne waaw ñu nuy wootee nag. Hmm. ñu ne du ñuy fab quatre vingt yi fi hmm. ak trente-trois communes ak seen conseil municipal. ak le parti UPS. ñoom ñooy élire le président Senghor. ñoom nag du élire le président Senghor le 5 septembre 1960 à l'Assemblée nationale comme président de la République. le 7 septembre deux jours après Senghor woo xaritam ba soppeem ba le président Mamadou Dia. wallaay nommé ko ca dëgg-dëgg chef du gouvernement. président du conseil. première célébration de la fête de l'indépendance nag mu mel ne àddina rek di. ba Cheikh foo dem ci Sénégal. lépp nga yëngu. waaye Senghor ne nan ko féete Dakaaru ba Cheikh xam ne fu ko féete waaw boulevard de la libération bii jàpp port ba jëm gaar ba biir Dakar bis bu rëy boobu loolu di dem nu nekk rek ci loolu la ñu amee suñu indépendance kilifa diine yëpp Sénégal ànd ak nu uh-huh. bàyyi Cheikh nuy dem bàyyi Cheikh nuy dem président Senghor yore réew mi li uh-huh. ko ci waroon mu def ko ba yàgg nañ muy indi l'article trente de la constitution ni su ma demee sa premier ministre moo may remplacé muy Abdou Diouf ñu ni ko mooy kat ñu mooy ki ma defal directeur de cabinet def ko secrétaire général ñu ni ko mooy kat mu ne mooy ki sotti major de sa promotion à la France d'outre-mer wallaay ñu ni ko papa de bu amee euh, euh, problème mu réseau euh, du baax ndax mu ngi woon fu neex sax li mooy firnde li may wax nii moom gardien du temple la dafa fekk ay génération yu bëri donc munoo waxtaanee indépendance ci soirée divertissement bu toll nii te doo ko ci boole donc bu ñu mënee àggali jokkoo bi ñuy jokkoo moom en visio télétravail ci télévision Futur Média bu ko defee mu àggali tëj ndax mu ngi toll tolloon ci diggante président Léopold Sédar Senghor ak article boobule nga xamee ni moo ko permettre mu mu am remplaçant bu mel ni euh, euh, kooku nga doon wax sànq xam naa ab Abdou Diouf la donc papa ñu bàyyi la nga àggali euh, ci président Senghor bi ñu ko laajee ki nga bëgg mu wutu la wax ñu lan moo tax nga bëgg mu remplacer la. l'article 35 de la constitution ñoom Ablaye lii nii dafa sote benn sote na benn génération. Mhm. démissionné Abdou Diouf rek yore réew mi. Ah, premier voyage am muy Taïf deuxième voyage tam mu ne président de la république ne fa ma nekkoon gouverneur fa lay jëkk defee rek sama voyage ca cheikhul islam ak ah. laaj Ousmane Kane très bien wàcc Kaolack Kaolack rien ne sera plus comme avant ah, waaw waaw di ko cooro président Senghor ni kër quatre courants doy na pour le Sénégal quatre courants doy na pour le Sénégal Abdou Diouf ni déedéet jàkk njàng ku mën na ndox uh-huh. nekk ci loolu sunu baay ba sunu xarit ba sunu sëriñ ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mhm. ni kii dee sama dooma alhaji Abdoul Aziz xalifa bu tedd ba ni kii dee sama dooma mhm. ndax ay bokkam mhm. Cheikh Ibrahima Niass noonu dinaa waalaa yéen ni ko kii nag mooy sunu ba muy Abdou Diouf Abdou Diouf ndeysaan yëpp sunu doom ñëw mu yore moom itam réew mi wallaay yore ko vingt ans le gardien de baba piano sa yokku la démocratie ndeysaan yokku forage bi la ko Cheikh Abdoul Ahad sunu baay waxoon ni ko li tax ma sopp la mhm. sa waxu tey mooy sa waxu démb mhm. loo wax tey moom ngay wax boo liggéey it muy def ñetti weer yu jot mu dem Touba mhm. ñetti weer yu jot it mu dem lay sant Tiwaawan ak kilifa diine yëpp nag nekk ay xaritam ba loolu di dem di dem ba président Abdou Diouf def fi li mu war a def ci forage def fi li mu war a def ci école def li mu war a def ci ay hôpitaux yooyu yëpp mu def ko waaye nag le suffrage universel prononcé mu woo Abdoulaye Wade mu woo Ousmane Tanor Gorso sax ñaana yàlla yokk leeram. amiin Ousmane. Mhm. yaay sama ministre d'état chargé des affaires présidentielles yow laa wóolu woo Aminata Mbengue ak jigéen ñi mu àndaloon ñëpp ni leen le suffrage universel s'est prononcé je m'incline devant le suffrage universel. ñu mhm. ne ko lay def mu ne je téléphone le président Wade pour le féliciter démocratie boobu. wallaay loolu mooy réew mi dem président Wade moom itam def li mu war a def. wallaay baax lool. di ko coro saar lool Sénégal. wallaay. lépp lu xam ne waroon ak ci réew mu def ko. Mhm. moom itam ànd ak doomam le président Macky Sall bi xam ne moo doon directeur de campagne am. Mhm. ci ñaari élection yëpp gañe ko. mu am benn loi à l'Assemblée nationale président Macky ni je ne suis pas d'accord et à chaque fois quand je ne suis pas d'accord je suis libre de le dire. ni dem naa dem moom itam dem dem dem dem ba élection amaat président Wade présenté Ousmane présenté Moustapha Niass présenté mm. Macky présenté mm-hmm. opposition bi yëpp dajaloo na ni képp ku xam ne sorti nga ca dëgg ba am sa majorité mm-hmm. tegu ci président Wade kooku la ñuy woteel nu woteel ko rek mu nekk président de la république président de l' espoir wallaay président mu def président tey jii gis nga li mu def. Mhm. pale ba la woote lu tax mooy feebar bi bëtt Allemagne bëtt Espagne. wallaay bëtt Italie. bëtt Chine. ñëw suñu réew. Ah. mu ni wallahi du ma féetu mukk indépendance. ñun looy def mu ni prise d'armes au palais. Mhm. def laan def ci réew mi moom itam boo xam ni waat naa ne amul benn région booy wër à travers le Sénégal ci quatorze régions yi ca Macky Sall am na mu fa def. Mhm. du tontu waaye yàlla may ko nag loo xam ne mosu ko may benn chef d'état lan la mooy woote bi mu bët ki dem Sénégal la yëpp de wuy si ko ba Cheikh wax président Macky nu jaroon nu jaar man ak moom man ko président Macky xam nga ne réew mi am na fi ennemi vous avez rek des adversaires ay goro gi fi nekk dans l'opposition bëgg li nga bëgg waaye nag ennemi amuloo boo amul ennemi kon ñii la wuy si dun la wuy si nu wuy si ko nag mu def discours bu mag bi démb lépp xam ni réew mi bëggoon na ko ci yaakaar ko lu ci ne sumb na ko yenn yi pare na ko ba noppi nag demal di xam ne mooy yow ëllëg loolu mooy président Macky Sall. ma allah ba Cheikh. waaw papa. fi ñaar ñëpp baax nañu. Mm-hmm. kon daan na wax bu may dem tournée bëgg naa Agement Sow bay ànd ca. Mm-hmm. am na photo boo xam ne sax dama la ko bëggoon woon Macky Senghor a ànd ak Badou Babacar Sall. <laughs> loolu yàgg yàgg na de. collecte dem Abdou Diouf ñëw. collecte Elisabeth dama jox ay bassin ni ma bu gàmm fukki pii su bassin yi jox ko sama baay Alhaji Abdoul Aziz. est-ce que. mooy sama participation ci gàmm gi. Mhm. Elisabeth dem Viviane ñëw wax Babacar Diagne mii nekkoon directeur général de la télévision ñu ko bëggoon naa bu may dem ànd ak Mansour Mbaye. Ah, waaw ne ko ni ko wallaahi ni ko bëgg naa ko lool sopp naa ko lool na ma bàyyi rek su defee lu baax rek ma ma commenté ko ba yàgg nag. doomu naat bi ñëw nag boobu itam sol mbub mu jot woo doomu sor gu jot kan muy Marème Faye Sall boobu itam wallaay wallaay première dame def fi lim moom itam li mu fi def mhm. waaw yooyu yëpp li dàq na ci réew mi réew mi yëpp nun nekk nunu benn pour xeex feebar bii mhm. amul APR mhm. amul socialiste amul AFP amul comité d'entreprise amul kenn Sénégal du ko dajaloo à l'unanimité ñu benn bii la nu am mooy feebar bii suñu bopp tabaraka wa taala jële ko fi mhm. kon Baye Cheikh mhm. réew maa ngoog wax naa la indépendance bi mu jógee wallaay Baye Cheikh wax naa la ñaan Baye Cheikh li ñuy ñaan léegi mhm. ci darajey sang ba tëdd ci Madinatul Munawwara sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne dara tëwu ko ñu feebar bi mundil ko Baye Cheikh maa ngi woon nekkoon nag barki dem yu suñu déplacé rajo bi ni Bécaye Mbaye sama doom yu baax jooju yaru intellectuel bi communicateur traditionnel demal ca wetu Hadj Mansour ma yóbbu fa rajo bi. Mhm. ak télévision bi ñoom ñëpp lu mhm. am ay gor yu xam ne bari nañu lool. Mhm. di Thierno Ba. Demba du jaay président Rahma sama xarit. di Racine sama doom. di Abdoulaye Dias. mi xam ne ci lañ ko dégg nga la mu def. ah <laughs> di Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ah di Dame Diop ak Mouhamadou ah di kañ di ki xam ne ci dëgg-dëgg moom sama dooma di Tahirou di Dior di liika ba mm-hmm. ah, ak xam na boo ko tuddee rek sa xel jam ci kilifoo jàkk yeeg jumaa yi muy moomi Kébé doomu Alaaji Njugo Kébé ak mm. mm-hmm. xam nga ne Mariam Dieng Sala ku dee Far Far Cissé ko jur mm-hmm. soxna Wele ko jur soxna Wele mooy jigéenu Alpha Mayoro mii di jaay Cheikh Seydi El Hadji Malick may ko tere xam allah di la gërëm. jërëjëf jërëjëf di la ñaanal yàlla may lu fan. amiin amiin amiin Mbaye di ñaanal sama jabaar bi rek bëgg ma lool fonk ma lool lu xew muy Mansour. Eh. di wax ne communicateurs yi à travers tout le Sénégal. Eh. message bi ma président jox ni na leen ko jox. Mhm. wax naa Abdou Aziz Maam Faama. Mhm. ak Abdoulaye Mbaye Père sama jarbaat. Mhm. ak ku ñu wax Xaadim Samb ak Amadou Mbaye Kër bi. ni leen wax leen ko ni Abdou Aziz téléphoné région yëpp ni président ne. ñu na takk mhm. président ne mhm. mhm. dajaloo ci mbooloo na takk ne na ku nekk sa kër président ne li mu bëgg réew bii nu bañ fi dégg feebar bii bu fi ñëwee it nu ñaan ci barke mag ci xam ni ñoo nekk fii feebar bu toxu jërëjëf jërëjëf Mbaye yaakaar naa ni ci dëgg dëgg sama jërëjëf sama xarit maa ngi lay tàggu ñaanal yàlla may la gudd amin amin maa ngi ñaanal yàlla may la amiin amiin wax naa moom wax naa moom ay sama doom. Mhm. président rahma. Uh-huh. ni ko waaye gor yi ñëpp a ngi joxe waaye na ñëpp a joxe rek. waaw taal saan un milliard. loolu la ñuy xaar la ñuy xaar. parce euh, euh, que dem Mamadou ah, kii Ablaye Dia. Uh-huh. ci la ko trois quatre millions. Uh-huh. jënd ko ci dund. wesaareef ko. ba noppi joxe trente millions. joxe na. Babacar Ngom Sedima. gor subaa soosu. wallaay dégg ko moom mille francs ak cinq cent francs ak cent mille ak un million ak deux millions xeebu nu dara. li ñu bëgg daal mooy feebar bi jóge fi bii nag. incha allah fii tax ci dëgg-dëgg ñun ñëpp ñu am di yaakaar dara rek. Mhm. il faut avoir des moyens. Mhm. président li mu amoon mhm. génne na ko. mu <laughs> ngi wutaat pour génne ko ñun ñëpp nag ñu àndandoo ak Abdoulaye Diouf Sarr. li mu tere nu ñun ñëpp ñu mboytu ko àndandoo ak ki xam ne Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finance muy recevoir soob yi moom itam président di ko jox instruction li nu war def mm. ñu def di gërëm ñëpp nag ñu joxe ak ñu joxewul voilà di gërëm les partis di gërëm les membres de l'Assemblée nationale mm. di gërëm la magistrature di gërëm la jeunesse di gërëm les hommes de la culture ñun nag les communicateurs ñaari ministre noonu seq mm-hmm. ministre bu ñuy wax ca dëgg-dëgg Ndeye Saly Diop di doomu Mbaye Saly Diop mu Mbaxtaar Diop ñu xam ne jiite na Cheikh Seydil Hadji Malick du seq di def ci noonu lu rëy rëy ak kan ak le ministre de la culture mm-hmm. Abdoulaye Diop mm-hmm. ci dëgg-dëgg ñooñu noo seq nag les communicateurs mm-hmm. dina gërëm ak di sant ak nag di nuyu sama mbokk yëpp di ñaan feebar bi dugg Allemagne feebar bi dugg Amérique feebar bi dugg Espagne feebar bi dugg Afrique ba yegg si fii ki ko mën a mooy tur boobu tabaraka noo ngi ñaan ci kàttanam ak ci dooleem ñaan ko médecins yi waaye <laughs> amuñu seen pay de. déedéet wallaahi Abdoulaye Diouf Sarr amuñu seen pay waaye ñi la daar rek di ay à travers le Sénégal. amuñu seen pay di gërëm la gendarmerie di gërëm la police di gërëm le militaires président Macky ca dëgg dëgg am problème bok sa bu ba sa réew si la ci problème bam sàll ñu lay ñaanal yàlla may la gudd fa di la ñaanal yàlla may wér président li bëgg ci réew ya ko xam yàlla ko yàlla defal ñun ñëpp àndoon nañu tous les jërëjëf Mbaye euh, li nga wax moom dama ci euh, teg dara ñu ngi lay gërëm bu baax papa euh, kon gis ngeen ni njëkkee nanu kër Haj Mansour suñu jur la maam la ci ñi papa la ci ñële. yàlla na yàlla guddal fanam mu wéy di nekk ak ñun euh, saa yu feetu indépendance euh, jotee euh, baax na mu nettali ñu li mu fekkee ak li mu xam ndax nag c'est un gardien du temple te ñëpp a ngi rafetlu jokkoo bi nga xamante ne jokkoo nañu ko ak moom donc premier invité d'honneur bu télévision Futur Média tey ci guddi gi ci samedi bi Pa Mansour mbay la woon ñu fekkoon ko këram def ak moom visio wax na lu am solo nag jëmale ko ci président yi fi jaar ba ba tey muy président Léopold Sédar Senghor Euh, muy euh, président Abdou Diouf Mbagnick Yacine Baba muy euh, président maître Abdoulaye Wade Ndiko Thioro saar ba ci président Macky Sall li mu témoigné wax ko kenn ku ne am na nu mu la doon woowee waaye bëgguma ko woon tey lu yàgg comme xaw na guddi moo tax waaye xam nga taxawaayam moom dafa am solo mu daaneel itam daanaka wax li ma ibbee ci ñi nga xamee ni boobu ba tey ñu ngi dem di verser seen ay dons yu ñu promettroon Euh, ci keroog bi nga xamee ni euh, patronat bi organiser nañu euh, soirée collecte de dons ñëw seet suñu ñu ne ñu dañ ko bëggoon jébbal ndax gis nañu taxawaayu télévision Futur Média ci sénégalais yi ak nii ñuy xeexee li nga xamante ni moo di. Euh, coronavirus bi euh, ñu nit ñu ne leen amul problème képp koo xamante ni citoyen nga et que pare nga pour àndandoo ak euh, sénégalais yëpp ci combat bi ñun nous sommes une télé privée waaye dañoo amee mission wu service public bi ñu leen nangulee loolu ñu organiser ko fii boobu nag jot na nañu ci guddi gi. ay euh, ay montants yu bëri euh, ay euh, promesse de don ñi indi nañu ñi ci des itam ba léegi ñu ngi leen di xaar am na ci ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñoo demal seen bopp ministère des finance joxe fa li nga xamee ni diggee woon nañu ko ci soirée boobule ñu organiser woon ci télévision Futur Média ku mel ni Aziz Ndiaye moom joxe na déjà 10 millions ku mel ni Elimane Lam moom joxe na déjà 10 millions ni mu ko defee woon promesse de don noonee la ko joxee patronat bi patronat bi dem versé ko fi nga xamante ni mooy ministère des finances ku mel ni Idi Thiam keroog ñëw na ci émission bi joxe na 10 euh, millions defoon na promesse de don après mujj na indi 10 euh, millions yi ku mel ni euh, Alaaji Mor Mati Sarr sunu baay boobu nga xamee ni yàlla yàlla guddal fanam Euh, moom it euh, euh, ni mu diggee woon noonee la ko defee indi enveloppe bu tollu ci 10 millions ku mel ni Cheikh Cissé Yeesal moom ñu ngi koy xaar promesse de don la ku mel ni sunu baay bu baax bi nga xam ne barki démb rek maak moom bàyyi Kumba Babacar ak Anta Alaaji Babacar Ngom Babacar Ngom moom ni mu ko diggee woon rek noonee la ko defee di somme bu toll ci 100 millions loolee ñu ngi ko ci gërëm bu baax Euh, ku mel ni Bédi Agne ni mu ko waxee woon noonee la ko defee euh, joxe na euh, enveloppe bu toll ci cinquante millions ñu ko ci gërëm bu baax ku mel ni Mansour Kama moom it ñu ngi koy xaar ci montant bi nga xamee ni diggé woon na ko mu toll ci dix millions ku mel ni Ablaye Dia Sénico ni mu ko waxee woon noonee la ko defee cinquante millions Tafa Dia ni mu ko waxee woon noonee la ko defee joxe na montant bu toll ci dix millions Tahirou mu baax mi Kor Mariem doomi Mariem Euh, moom it euh, ñu ngi koy gërëm bu baax euh, gis ngeen li mu joxe semaine bi lañu ko gis mu toll ci trente million loolee ñu ngi ko ci gërëm bu baax Euh, Demba Ka e OL moo ko waxoon def na ko 10 million la joxe euh, ci euh, li patronat bi organisé woon dénkoon ko télévision Futur Média nga xam ne ñun diffuseur lañu loole loolee ñu ngi ko ci gërëm bu baax ku mel ni Lamine Camara moo ko waxoon def na ko 10 million la waxoon joxe na ko patronat bi yóbbu ko fi nga xamante ni mooy ministère des finances ñun ñu diffusé yooyu yëpp dafa jar leeral xam nga Sénégal daa bëri kalaasu demb gi nga xam ni lu nu maîtriser wul rek la ñuy débat dañu maa tere tontu mais xam nga làmmiñ wi moom des fois dama koy bëgg a téye mais du mën a téyewu moo tax il fallait que euh, ma def lii tey donc au fur et à mesure ñuy dem euh, lim bi takku na euh, ñi nga xamee ni joxe nañu baat boobu rek laa leen di waxal moo ko diggoon def na ko ñi nga xamee ni nag joxe ñu te defoon promesse de don ñoom it ñu ngi leen di xaar am na ci ñeneen ñoo xamee ni je a rappelle encore fii la ñu defee woon promesse de don biñ ci tegee ay fan demal nañu seen bopp fi nga xamee ni mooy ministère des finances joxe fa enveloppe bi ñu diggee woon Euh, combat bi li nga xam ne ni je rappelle encore que combat wu ñëpp la euh, c'est un combat combat mondial mais dañoo toll ci euh, lu golo xam na bootee doomam waa France ngi toppatootante Amérique Trump a leen di toppatoo yeneen dëkk yi Espagne Italie euh, ñi ngi leen di toppatoo donc ñun euh, nanu toppatoo sunu bopp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi kenn ku ne euh, xalaatoo ay jafe-jafe par rapport ak sa personnel waaye yëkkati nga som joxe wala promettre nga et que ñu ngi lay xaar joxe wala defoon nga promesse de don ci télévision Futur Média àndee ak patronat bi waaye demal nga sa bopp fi nga xamante ni moo di ministère des finance Badou Ndiaye moo ko diggoon def na ko joxe na 10 millions euh, Mbaye Gueye EMG euh, suma waayjur boobu la nga xamante ni ñu ngi ñaan yàlla guddal fanam Baye Bijou Gueye euh, moom it jot na nañu jokkoo ak moom en direct ci télévision Futur Média moo ko diggoon def na ko euh, joxe na euh, lu toll ci cinquante millions ñu ko ciy gërëm bu baax euh, ajot moomi Kébé mu Serigne Saliou moomi Kébé mu Serigne Ablaye Tagué jigéen ju baax jooju nga xam ni dafa tàmm social moom it moo ko diggee woon def na ko joxe na dix millions ñu ngi ko ciy gërëm bu baax Khadim Ba bu Locafrique moom it suñu doomu yaay la moo ko diggee woon def na ko joxe na montant bu toll ci dix millions Tafa Sow dix millions la njëkkoon wax. faf nag bi bis yi doxee mu yokk loxoom euh, euh, diggé woon cinquante millions Tafa moo ko diggé woon def na ko joxe na enveloppe bu toll ci cinquante millions euh, ñu ko ci gërëm bu baax pendant que je lis noonu lay jàllee ci suufu écran bi ñi nga xamee ni ñoo joxe seen participation ci xeexuk coronavirus bi li nga xamee ni yàlla na fi jóge ndax corona rek a mën lii lu toll ni 4 avril. ñu waroon toj dëkk bi defal leen ay ay ay xawaare heure bi waroon na fekk soo de bu sa toog sama wet ki ne laam toog sama wet booy do toogee nële ñuy xalam di xawaare ma woo mbenn jaata sekk ak ndaanaan yi nekk Sénégal ku ne way ñii mbaar ñii njolli ñii mbëfër waaye corona rek moo mën ma toog man kot cundum ak benn caméraman ci télé bi waaye terewul invité yi invité d'honneur yi ku ci nekk dama lay fekk sa kër ajot ki ne laam naa dem fekk ko dinaa dem tey ba Italie euh, fekk fa benn tubaab boo xamante ni ñun dañu koo bëgg euh, ndax dafa miin histoire du Sénégal muy euh, Lorenzo ab géwél la wala ab gawlo dinañ ko fekk ba Italie dinañu dem itam kër El Hadj Mbaye Garmi moom it gardien du temple la fekk ko këram géwél ñu dem seeti Pa Abdou Aziz Mbaye moom it dañ ko fekk këram ak yeneen i personnalité yoo xamante ni à tout moment mën nañu euh, jokkoo ak ñoom visio télétravail euh, ci télévision Futur Média euh, ki nga xamante ni moo di Bamba Ndiaye moo ko diggee woon def na ko enveloppe bu toll ci 20 million la joxe Sadio Mané ko diggee woon moom it def na ko ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm bu baax Dame Diané càmmiñu Fatou jaane moom tamit moo ko diggoon def na ko xam nga engagement des koy respecté et ñu ngi koy gërëm bu baax Abdoulaye Dia Sénico Euh, moo ko diggoon moo ko diggee woon def na ko yónnee na euh, enveloppe bu toll ci cinquante millions euh, Seydi Dia ñu ngi lay gërëm bu baax ak ñi nga àndal Sénico promesse bi noonee la ko respecté moom Abdoulaye Dia Sénico donc joxe lu tollu ci cinquante millions am na ci ñeneen ku mel ni Alaaji Julde ñaan sunu jur la nit ku baax ku yiw bàyyi fi fi ñaan ak euh, euh, bijou mi nga xamee ni moom la ñu dénk maam Cheikh Mbaye euh, bàyyu fifi mi ñu dénk Cheikh Mbacke Ndiaye Samba Yaay Demba su ko mi ci dex gi ci ndar moom it ñu ngi koy gërëm bu baax alaaj julde ñaan moo ko diggee woon def na ko joxe na chèque bu toll ci 20 millions Euh, yooyu yëpp nag euh, ay montant la euh, yu ñuy dajale ngir combat bi ñu nar a combattre coronavirus bi la nga xamee ni ñëpp ngi koy móolu su buuxul ma corona rek ngay dégg ndax lu waaye waroon a def rek ci neex-neex defe naa defatoo ko danoo aj arme yëpp ndax moom te àddina wërngal képp la laal loolu nag di lu doy waar loo xamee ni ay réfléchir euh, man yenn saa yi ma toog ak sama benn xarit ne ko bu doon sama sago du ma fekkee jamono bii mais bon lu ci waay mën pour la première fois 4 avril euh, ñu koy célébrer nii et pourtant euh, fête la bu am solo fii ci Sénégal Euh, euh, Khadim Ba donc wax naa léegi ni joxe na euh, Dame Diané ci moom laa nekkoon moo ko diggee woon def na ko càmmiñu Fatou Diané joxe na 20 millions Saliou Mboup moo ko diggee woon def na ko joxe na moom it 10 millions As Ndaw Ndukumaan moo ko diggee woon def na ko joxe na 10 millions ñi ci des. Euh, dinaa leen liir kenn par kenn euh, as ndaw ndukumaan euh, moom ñu ngi koy xaar promesse de don la defoon boobu ba tey ñu ngi lay xaar as ndaw di xaar itam ki nga xamante ni ñooy waa chambre des notaires Euh, ñoom tamit euh, ñu baax ñooñu defoon nañu promesse de don diggé nañu ñu ngi leen di xaar ba tey euh, ci montant yi nga xam ne ni joxe woon nañu ko comme quoi y a eu beaucoup de de don yoo xamante ni ba léegi ñu ngi leen di xaar liñ jot a jot te patronat bi je rappelle encore que ñoom ñoo organisé woon collecte de don boobu la nga xam ne ni mënee su koo tuddee sax téléthon ndax xam naa bu ñu ne woon téléthon ci télévision Futur Média fii toj waaye nag dañu ne rek euh, nañu euh, nangul patronat bi bëgg a organiser loolu ñun ñu nekk seen diffuseur ni ñu ko mënee def ak euh, yeneen i organisateurs yu mag wala organisme noonee la ñu ko nangulee patronat bi ne leen ñëw leen ñu jox leen suñu antenne diffuser leen jàppale leen ci collect bi ba bi ñu defee promesse de don bi keroog bi soirée bi jeex montant bi toll noonu Serigne Mboup mi nga xamante ni moo ko jiite bi mbir yi passé dem na li mu jot a jot la dem werse fi nga xamante ni ministère des finances euh, yi mu jotagul nag euh, ñu ngi koy xaar euh, muy ay promesse de dons yoo xamante ni dinañu ko préciser benn par benn tout au long de cette soirée li ñuy def mooy tegal leen ab woy woo xame ni daf ñuy fàttali chaque année bu 4 euh, avril euh, yegsee nu nu koy euh, fàttalikoo Youssou Ndour nee na feetu indépendance yi mu fekkee bëri na aha kay yi mu fekk yi nga fekkee bëri na ñun ñi nga jur sax yi ñu fekkee bëri na Père Ousa ci àndal ça nous rappelle des souvenirs jamonoy 4 4 44 la woon ñu dem ba Sénégal am 60 ans tey ñu célébrer 60e anniversaire bu indépendance bu Sénégal mais ci sobriété seetaan ngeen ko tey ci suba président Macky Sall. ak euh, euh, takk der yi euh, rek a nekkoon fi nga xamante ni mooy palais ñu jëflante li ñu war a jëflanteel ak drapeau bu Sénégal vert jaune rouge ak drapeau bi ci digg bi pare lépp taxaw li ko waral nag mooy xeexuk coronavirus bi Covid 19 bi nag ba tey digle yi du wuute digle yi changé wul respecté leen ko cet ak gàtt tànk. donc nañu seetaan euh, daje bi amoon euh, ci euh, feetu indépendance boobule diggante Youssou Ndour la woon ak Perouza ça nous rappelle beaucoup de man de yu damay dellu sant yàlla may na ma ma fekkeeti feetu indépendance feetu indépendance yi ma fekkee bari am na samay moro dama daan jóg ca faal jaar ndekki daw wuti place dem bu xante ji jàppa palaas ca li ma gënoon na neex défilé militaire bu élèves yi rombe yor seeni drapeau sol ay tenue kaki di balance les bras bu armée ñëwee dama seet ko

that's your jamonoy 44 44 euh, euh, la woon euh, même chiffre bi sax dafa symbolique woon yéen a ngi fàttaliku et album la ci Youssou Ndour génne woon woon ci ay ndaanaan ñoom Titi ñoom di Samb Youssou woy ci ay woy yu neex lii sama xarit bi ne woon sànq ndeysaan li ma neex ci yuusu mooy jamono bu ne rek lu xew rek am na lu ci Youssou mës sa wax Potundaa sax Youssou Ndour woy na ko Kuddu Youssou woy na ko. ceeb Youssou woy na ko y' a tellement de euh, chansons yoo xamante ni à chaque fois qu'il y a quelque chose foo lamb rek mën nga ci jot ab woy woo xamante ni dafay méngoo ak actualité bi méngoo ak li nga xamante ni moo xew donc 44 44 euh, lii défilé la euh, mu ànd ci ak Perouza Perouza d'ailleurs ñu ngi koy nuyu di ñaan mu yàgg fi moom it c'est un très grand artiste yàgg na soutenir yàgg na bégal Sénégal sénégalais yi yàgg na soutenir sénégambien yi parce que noonu la bëggee ñu koy wax donc Perouza ñu violence malheureusement euh, confiné wala couvre-feu yéen a ngi toog àndandoo ak ñun euh, ci télévision Futur Média toog leen seen kër li ci des ñun ñoo ko des euh, dinañ leen wettali ci ni mu gën a silwise bu ko defee du ngeen sentir peut-être stress suk coronavirus bi la nga xamee ni ba léegi moo ngi fi bu ñu déggee transmission communautaire dañuy tiit ay nit yoo xamante ni feebar baa ngi ci ñoom te malheureusement xamuñu fan la ñu ko jëlee xam nga yooyu nag dafay jur panique bu ñu ko bëggee éviter ba noppi itam gàtt tànk euh, bu ñu mënee euh, bañ doxi euh, ñu toog waaye bu ñu waree def farata peut-être ñu def ko mais ci ni mu gënee gaaw te dellusiwaat ndaxte loolu la feebar bi laaj je rappelle encore ñi nga xamante ni am na ci ñoo xamante ni ci xaalis bi ñu doon dajalaatu keroog dem nañu joxeel seen bopp après kayit bi nga xamee ni ministère des finances lañ leen koy joxe dinañu dem seeti ku mel ni éliment laam mi nga xamante ni moom moo chargé wu ci connecté xaalis yi jox ko ko. ndaxte euh, euh, yooyu yëpp benn la sotti ci ak def ci la ñëw jox ko patronat bi euh, ñu dem werse wala ñoom ñu dem werseel seen bopp loolu itam defe naa xel mënees na ko nangu ku mel ni Tahirou Sarr Tahirou Sarr moom ku jara gërëm la ku jara gërëm la ku jara encouragé la ndax woolu nañu ko keroog ci guddi gi Euh, waaye euh, demal na boppam semaine bi gis ngeen ko euh, on a tous partagé image boobule mu def wala ñu def di wone bi muy joxe lu toll ci milliard waaw Tahirou Sarr joxe na milliard waaw milliard moom li ma def nii sax dañ koy tere ay jël loxo ci kanam ak wala ci gémmiñ mais am na montant yoo xamante ni boo ko déggee mu jóge ci benn doomu sénégalais muy xale am jom nangoo liggéey mënoo lu dul bég ci voilà donc milliard nga yëkkati ko joxe ko Euh, euh, dem yóbbul ko sa bopp joxe ko fi nga xamante ni mooy ministère des finances euh, pour dugal sa participation ci xeexu coronavirus bi loolu mënul mënuñu lu dul rafetlu ko donc ñu ngi gërëm bu baax ki nga xamante ni moo di Tahirou Sarr ak njabootam ñoom Mariem toute la famille on les on les encourage am na ci ñeneen ku mel ni Bara Gueye moom ñu ngi koy xaar voilà image baa ngi noonu Tahirou gis ngeen ko mook ministre bi di fàttaliwaat ni Elimane Lam mi nga xamante xamante ni euh, euh, yàlla na taxawaayam yàgg euh, mooy def collect bi souvent kilifa yi ay xale lañu mais ay kilifa lañu nekk ci secteur privé bi di lijjantil seen bopp seen parcours dinañu dañuy dem ci Elimane Euh, joxaat ko kayit gi nga xamante ni euh, jébbal nañu leen ko parce que boo demee werse dañ lay jox kayit goo xamante ni mooy wane ni euh, werse nga li nga xamante ni moom nga defoon comme promesse de don donc ñu ngi ciy gërëm bu baax Tahirou Sarr di ko encouragé julde ñaan itam ñu ngi koy gërëm bu baax sunu baay boobu yàlla na taxawaayam yàgg et puis maître Dior Diagne defoon nañ ñu ngi koy xaar Euh, ci euh, li mu euh, li li li li nga xamante ni bëgg nañu mu def ko ci xeex bi ñuy xeex coronavirus bi di xaar tamit ku mel ni Khalifa Cam Khalifa Khalifa Camara non Khalifa joxe na voilà Khalifa Camara moo ko diggee woon def na ko joxe na 10 millions ku mel nii Euh, euh, Jabel Seck mu baax mi moom la ñu dénk sama jigéen bi Fatou euh, Jabel yow it ñu ngi lay xaar moom it ñu ngi xaar participation am Jabel nit ku baax la moo jiite umu informatique Euh, Fatou Jabel euh, waxal Jabel comme Jabel yow la bugg te xam naan yaa mën dara ci Jabel man mën na maa wax sax ci télé bi àndandoog secteur privé beeg euh, patronat bi nga xamante ne ñoo organisé te yónni ma man may diffuseur donc xëj na boo waxee Jabel moom it mu joxe. alors ñu ngi xaar itam ku mel ni Cheikh Si Takamoun Cheikh Si moom it ñu ngi koy xaar. Euh, ci euh, participation am euh, jëm ci xeex coronavirus bi xaadim Fall entrepreneur moom it ñoo ngi koy xaar participation am la ñuy xaar ci li nga xamante ni moo jëm ci xeex coronavirus bi ñu ngi xaar ku mel ni Saer Seck Saer yow ñoo ngi lay xaar. nit ku baax ki saa yu la sa réew soxlaa ñëw nga donc Saer ñu ngi lay xaar ñu ngi xaar sa sa participation ku mel ni Racine si Euh, moom it euh, ñoo ngi koy xaar maa ngi dégg léegi euh, Haj Mansour Pa Mansour mbay di ko gërëm ci taxawaayam mais Racine si ñoo ngi lay xaar di xaar ku mel ni Serigne Diagne Serigne Diagne ñu ngi lay xaar yow it saa yu la sa réew soxlaa taxaw nga donc ñu ngi lay xaar ci combat bi ak secteur privé bi ku mel ni Youssef omais moo ko diggee woon def na ko. moom it joxe na euh, montant bu toll ci euh, vingt millions euh, Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye nit ku baax ki kor ina dem neex a fekk Kaolack laa ko tuddee borom Kaolack laa ko tuddee Modou Ndiaye Rahma moom it joxe na. Euh, euh, li mu waxoon def na ko moo ko diggee woon def na ko euh, yàlla na jàmmam yàgg saa yu ko Sénégal soxla taxaw na saa yu ko Kaolack soxlaa taxaw na donc defe naa combat bi combat wu région yëpp la combat wu Kaolack la combat wu Tambacounda la combat wu Thiès la combat wu Wuduru la combat wu Goudiri la donc ñu ngi koy gërëm bu baax ki nga xamante ni euh, moo di euh, Serigne Dame Diop Mansour semaine bii rek euh, jokkoon na ma ak ku mel ni Pa Mansour mbay ak ay jegeñaaleem ñu may yëgal ni demal na boppam jox ministre des finances montant bu toll ci cinquante millions donc loolu itam ñu ngi koy rafetlu sotti ci ak def ci la soit nga ñëw jox. Euh, patronat bi ak secteur privé bi Elimane Lam mi nga xamante ni mooy def collecte bi mu yóbbu ministère des finances wala nga demal sa bopp après ñu nit nañ ko yëg ndaxte euh, euh, ci dëkk bi la ñu dëkk et puis kayit yi ñu leen di jox foofu ñu nit dañ ciy jot et c'est important ku mel ni. Euh, euh, Saer Seck wax naa ko léegi ñoo ngi koy xaar euh, Youssef Omaïs moom it joxe na Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye Papa Djibi Corina Dem moom it surtout Albouri boobu joxe na moom it montant bu toll ci 10 millions ñu ngi xaar ku mel ni Thierno Ndom Ba Thierno Ndom ñu ngi lay xaar yow it saa yi lu sa réew soxlaa taxaw nga donc combat bi komba bu urgent la ñu ngi xaar sa participation bu ñëwee ñu jël ku mel nii Serigne Seck C3S euh, Serigne moom euh, moo ko diggee woon def na ko joxe na montant bu toll ci 10 millions euh, ñu ngi ko ci gërëm bu baax sunu beneen xarit moom it sunu waay la Amadou Seck Eurogerme moom it moo ko diggee woon def na ko joxe na montant bu toll ci 10 millions Asi kase ay euh, Aysatu Kase euh, nga xamee ni ñun yàkkamtiwuñu aj màkkaam ndax suñ ko fa fekkee euh, suñu xel day dal moom it bu yëkkatee somme bu toll ci 10 millions defoon ko promesse de don respecté promesse boobule joxe ko moom it moo ko waxoon def na ko donc Asi Kase ñu ngi koy gërëm bu baax mbokku ndeyam Xadi Kase Biram Kumba Njaay Euh, Khady Kassé laa ni woon barki démb loo bokk ak Soda Kassé Soda mu Anta Sare euh, donc Asi Kassé joxe na 10 millions euh, ñu ngi koy gërëm bu baax Abdoulaat Ka kenn du yow yaa ko diggee woon def nga ko joxe na lu toll ci 10 millions moom tamit ñu ngi ko ci gërëm bu baax je rappelle que ci suufu écran bi ñi joxe mu ngi jàll et itam à tout moment naa def ay rappel ñi nga xamante ni ñoo ngi leen di xaar itam du tere naa rappel ndax crise bi dégg naa jeexagul de. segam euh, tey le président euh, jël dogal ni dañuy yokkaat euh, ñoom couvre-feu état d'urgence ak ñoom seen ngeen war a xam ni mbir mi jeexagul et président de la république démb ci discours am diggé na ci secteur bu ne montant bu mu fay dugal Euh, gis naa sax mu ne day yokkaat euh, aide à la press bi euh, gis naa itam mu ne am na montant boo xam ne dina ko joxee ci diaspora bi ak secteur yu bëri loolee itam ñu ngi koy rafetlu waaye xam ngeen ni xaalis du doy ñoom mën nañoo joxe pour un mois pour deux mois waaye nag yeneen weer yi ci des ndaxte crise bi kenn xamul fu ñu jëm ak moom su booxul ma coronavirus moom la ñëpp yi wax nañu ko móolu rek xëy na buñ ko móoloo dina fi jóge mais en tout cas ñu ngi gërëm donateur yëpp ñi nga xamante ni ñoo defoon ay promesse de don respecté ko ci ñi ñu ngi leen di gërëm ñi nga xamante ni ñoo defoon promesse de don euh, te yóbbul seen bopp euh, montant yi ñu joxe woon ci télé bi euh, fi nga xamante ni mooy ministère des finance ñu ngi leen ciy gërëm sotti ci ak def ci la ñi nga xamante ni ñoo defoon promesse de don te ba léegi ëndeeguñu ñoom it ñu ngi leen di xaar mais sañ na maa wax ni fi mu tollu tembe daal bu ma xaymaa war na noo toll daanaka ci deux milliards alors on va continuer les invités d'honneur yu télévision Futur Média dañ leen di fekki seen biir kër euh, ki njëkk a fekki léegi nii di euh, Alaaji Mansour Mbaye kiñ ciy toftal euh, sunu yaay la dootuma répété sama diggante ak moom di ajatu ki ne laam yaayu ndey caam ak euh, euh, ñu ngi koy nuyu mais balaa ñu koy fekki këram euh, dama bëggoon d'abord won leen message bi nga xamee ni def na ko ginnaaw bi leen président recevoir ñoom communicateur traditionnel yi ajatu ki ne laam jël na initiative bu am solo xam nga Sénégal sama ñoom yaay maire yi dañu bëgg ay xew da ngay dem fekk ci seeni xew buñ dee yebbi dinañu dépenser ay 20 millions dinañu ndawtal ay 2 millions yooyu yëpp nag dañ koy tele tere ndax nag seen daje yooyu wóorul corona sax xaj na fa euh, am na euh, lu ci Kiné Lam def lu am solo loo xamante ni day sensibiliser sénégalais yëpp mais surtout euh, jigéen ñi nga xamante ni d'habitude ñoo yëngu ci ay xew nanu ko xool waaw may ma tuuti nag Adja Kiné Lam mi ma doon xaar pour sama xew bi dafa ñëw léegi may ma dans 30 minutes ma yeggale ak moom Adja may na nga def laam laam na nga def sant yàlla sant yàlla rek maa ngi nii rek maa ngi sant mbay yow xam naa amoo toogaay sax te man itam xam nga ni maa ngi toppatoo sama xew boobu sama ngénteel taaw loolu amuloo benn toogaay li ma yor daal vingt million la vingt millions bi yëpp jaayal ma ko ay piis yaay sama géwélu juddu te xam nga lu baax jaayal ma ko ay piis jënal ma ci or ndax damay ter teral sama njëkkee doom teral sama goroy doom xew yi daal damaa bëgg mu daan rek laa bëgg defal ma ci loo ma warul woo ma war a defal rek ngéntel taaw la million bi nag yaa ko moom yaay sama géwélu juddu nga paas ci rek ba booba bu soobee yàlla laay sali xanaa yëgoo li xew ci réew mi jàmm coronavirus bi xew ci si réew mi nga xam ni moo lëmbee àdduna bi xanaa yëgoo li xew ci dëkk bi damaa defoon ni mu yegsiwul woon Sénégal. yegsi na ne far ci Sénégal. maar moo lëmbee réew mi mooy coow ci Sénégal. Salimata. waaw. moo tax un million bii nga ma may un million de personnes yu wér candak am seen santé ànd ak seen wér gu yaram moo ma dàqal. Ah. xam nga ni géwal de géew rek la am. ngénte ceet takk dëj xew-xew. lépp daf koy bañ lépp te nañ ko ci suuf te géwél it kiiram rek la am maa ngi woon nag sama mbokki communicateur traditionnel yi di moo sama mbokki ndaanaan yi ñu àndandoo ci geer bii nag xeex ko mu jóge ci réew mii lee tax waxtaan ak nga war a waxal baax man nag benn baat rek laay wax mooy nag kenn ku ne toog sa kër restez chez vous Adama